du ma tooñ kenn mais lamb ji maaka moom loolu ngeen di ma ñu dégg lamb ji maaka moom far force may wax ku ne di génn naan arène nationale maay borom arène nationale maay def lii yen bu tayee ngeen dem fii bu suba ngeen dem fii gëmoo leen seen bopp xuutar xuutar yi topp mbër bu daanee ngeen toog si internet bi waxoon naa ko newoon naa ko mu def lii gëmoo leen seen bopp leen di def yëpp ay dóor la bàyyi ñi mën ñi mën dëgg duñu ñu rëy ñi mën dëgg ñi mën dëgg du ñu rëy ñi ngi toog seen ruq lamb booy ñaa ngeen ma njëkk a xaar dama leen limal lamb booy ñaa ngeen ma njëkk a xaar ak Modou ma ñëw jommal maaraay ñu ne waat bërët ñu dem ci komba Modou Lo Ama Baldé ma jommal leen ngeen bërët ngeen ñëw si Ada Fass Zarko ma jommal leen ngeen a ñëw si Bombardier Franc ma jommal leen ngeen a përët si Papa Boy Djiné Jokkel ma jommal leen ngeen a përët ñëw si Tabu Ngor ak Diop ma génnee jël bi ne leen na kooku moytu wet gi ak tànk yi jël bi na la demee jël bi wax leen ma nu mu demee yéen xanaa yéen du ngeen wala du ngeen xool xulliwu leen xanaa waaye nan la ko def ci franc bi la ko jaar mboot ko kon sama gaay ngeen ñëw si Talfa Gamer bi lan laa leen wax Talfa Youssou Ndour bi lan laa waxoon na Talfa sóor ay tànkam xanaa loolu du gis wala loolu loolu du gis wala loolu du gis-gis loolu du gis-gis wala lan la na Talfa sóor ay tànkam Youssou Ndour fan la jaar Talfa tegal lañu combat bi jël ngeen teg ko bu ngeen ñemee teg leen ko du ngeen ko teg de for force arène nationale maay forom la fa nekkee maa koy def yéen ngeen nekk fii di toog di wax la ngeen wax da ngeen xam-xam bu ngeen war a waxee ñaata yoon ñoo fi dem far ñi fi dem faar ñaata la politique bi ñëw ma joomal leen xanaa du ngeen nangu kenn moo fi taxaw ne leen joomal day day doon président kenn moo ko fi def da ngeen a ñeme kay topp leen samay vidéo ngeen xool kan moo fi ñëwoon ne senegal toog ne senegal dañ koo xeex gars yi wéeti ma ana nu mu mujjee xeexuñ Sénégalais yi ci suuf ma ni sama gars yi xoolal eh ragal day xañum cër nit ki na nga ko yàlla may ñun Baay Faal lañ ñun ay réel koor lañ ñun guddi la ñuy dox déggoo ma de ñun guddi la ñuy dox ñun guddi boo ñu fëggee yaa ngi fekk ñu ngi nekk suñu kurus ñun course lañu am ñun course lañ gëm té goma dé ñun si bidiw lañuy xol ta fétu ciosan lañ yor ta kën du ko dindi luñ la wax ci lamb day am far force ah mais du ngeen nangu ñi nga xamné amuñu benn xam-xam amuñu dara ngeen nangul mané sama gaay nangul nangu té jël leen vidéo yi ngeen tas ko bu lamb jéxé da ngeen di jël vidéo yi ngeen tas ko ngeen xol ba xam ibrahim khallay ban for la def kan mo fi taxawon Bombardier Eumeu kan mo fi gennon wax du ngeen ko xanaa xanaa xanaa leen ko yéen li may def xanaa gisoo leen ko Sa Thiès Eumeu Sène kan moo fi kenn wax Sa Thiès Eumeu Sène gaa yëpp a ruux sëriñ yëpp ruux bi mu demee ba bëre bi jeex seen vidéo yu yàgg yu ñu def lañ génn si TikTok bi di tof toflu sëriñ bu si defee na ñëw na ñëw nag léegi léegi damaa joxe ko damaa joxe damay ñaan yàlla journaliste bi mu dagal ma ko dama ni tagal ma lii dama ni diggante guy gi ak aada dama ci woo ay sëriñ léegi diggante guy gi aada faas dama ci woo ay sëriñ nañ ñëw léegi kenn ku nekk na génn def li muy def ñu xool ñu dugal ci tiktok bi dugal ko fépp ñu xool ma ñëw ci combat Ama Balde li nga xamante ni Ama Balde ak Gris Bordeaux nañu nañu génn na sëriñ yi génn léegi ñun ñëpp ñu ñu ñu def suñu video ñu dugal ñu xool bu ñu ñëwee ci Tapha Tine Balla bi nañ ñëw kuy génnee verdict wala nañ ñëw kuy génnee verdict yi kon sama gaay question boobu la posé du da ngeen ne Xalilulaay neew fi ngeen di bind lu leen neex di wax lu leen neex maara yi nga xam ne dañ soxor iñaan xale bi ndaw bi moo leen di joomal